waaye euh, dara bettuma ci moom ci lu baax ndax xamoon naa ko lu yàgg yàgg waaye xamoon naa ni nii rek lay mujjee yàlla na ko taxaw ay at yu bari ñu ñu yàgg ñu yàgg koo ànd ak moom suñu maxtaar moom ku xam bu yàgg ak ku xam tey ñooyam da ngay xam ne pas-pas bi rek la. waaw ah, mbokk yi xarit yi comme ni leen ko waxee woon rek ñu ngi nii taxaw ak Serigne Moutada Mbacké moom Fatah ñu gis ko tey ci ubbite jumaa ji nga xamante ni si moom la Serigne Matar Diagne kuréel social doon def ak tarib alxuraan bi Mbacké ñu ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf ñu ngi siyaare bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp te am mbégte bu baax ci teewaay bii nga xam ne moom lañ teew ci jëf ju mag ji nga xam ne Sëriñ Maxtaar Jenn doon na ko def te mu bokk ci yi nga xam ne nii eh, bu ci ñëpp maase woon rek dana bokk ci jëmmal liggéeyub sëriñ bi ak ñaanuk sëriñ bi ci dëkk bi ndax bokk na ci lii mu tawaxal lii mu taxawal muy jàkka sëñ bi li mu njëkk a taxawal ci waa mooy jumaa ji te moom la dénkaane woon ne ko ci doon ak bu ñaan ci ay xasitaam tamit ne mbooleem këram bi yëpp yàlla na ko suñu def muy jàkk waccal wéetu kulaha daa kon bu fekkee ne sëñ Maxtaar def na fi lii day mel dafa bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo ngi ñoo ngi jëmmal ñaanuk sëriñ bi mu waa tamit taxawal fi daaree alxuraan te ku nekk xam na ne sëriñ bi bokk na ci ay yéeneem yi taxoon mu doon sanc dëkk bi yéeneem yéene sëñ bi ci boppam moo doonoon ginnaaw bu mu sancee dëkk mu toog fi di jàngale alxuraan boppam waaye suñu borom teg ko natt yooyu mu ko teg ba tax mu génn waaye loolu moo taxoon euh, bokkoon na ci yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg kon nag képp koo ca wuutu rek day mel ne yaa ngi ci ndigalu sëriñ bi loolu moo waral sëriñ Dame Abdourahmane Lo ñoo ñëpp kon nag euh, bu ñëpp maase woon def lii muy def ci fii rek lépp dana dana jàkk yëmbul ci loolu waaye leeraay ngay dëkk beeg yëpp da taxaw def ko ci quartier bi mu nekk fexe ba paawaas ko jëmbat fi ay garab ak yooyu yëpp kon day mel ne li ñuy wax sax Touba jëm ca kanam bu ñëpp maase woon def nii sëñ Maxtaar def dëkk bi dana mën a gën a jëm ci kanam ci saayir doonte suñu borom defal na sëriñ bi li mu ci bëgg ci baatin kon ñi ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom def ni mu ko taxawalee fii yàlla na dem ba law ci Sénégal gépp ndax bu fi lawee rek islam gën fee law wooteeb sëriñ bi gën fee law te wooteeb sëriñ bi mooy lislaam kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp kàddu yi may wax nag maa ngi koy waxaale tamit ci turu bokk yi nga xam ne ñoo fi teewal wat ne sëriñ Mourtada mi mu sëriñ Moustapha mu sëriñ El ak mboolem kilifa yëpp jërë ngeen jëf Serigne Fallou Gallas Lo Gaynde Kokki mi ngi noonu di dugg si kër Serigne Matar Diène cour social moom Lamine ibil ko waaw euh, jërëjëf Serigne Abdou Salam kii ñëw war naa ñëw fii ndax moom kokki rek la bàyyi ko ñëw fii moom nag day xaritu Serigne Matar di mbokkum Serigne Matar ndax yaayam soxna Ami Lo mii mook Serigne Fallou Gallas Lo mii ñoo bokk ndaam ñoo bokk gaydeel sëñ li loolu lépp nag juddi bi baax na aw sant baax na waaye kii li ko fi tax ñëw tey jii mooy arxuraan arxuraan lay xeeñ ci bërëb bii bi sëñ Maxtaar defee lii bokk na ci ñi fi njëkk a ñëw jaajëfal ko sant ko gërëm ko ba tey yàlla dogal ñu ubbi jumaa ji kon sëñ Fallou daal ak seen mi ngi nii. sëñ Fallou Gallas Lo ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax a baax a baax. ñu ngi am mbégte bu baax ak kontaan ci teew gi nga teew kër sëñ Matar Diène kuréel social. alhamdulilah maa a bëgg maa gën a kontaan sëñ Matar day ci man ba pare baax lool lool lool lool lool doxu ci loolu alxuraan rek. maa ngi noonu sax a yàlla ndax yàlla tubaarkàlla waaw joxe addiya ji doy na wallaay bàyyi ak jàmm yàlla nga gudd fan yow yow yow loo wax nga li at yi nga am fi nga toll li nga yor ku ko yor ci ay immeuble la koy def waaye nga jóg def ko ci sëñ Touba ko jumaa def ko ci yàlla def ko ci alxuraan yàlla na la yàlla fay sëñ Touba ñu mel ne la soxla yàlla nga gudd fan yàlla nga yàlla ku la ko yéene yàlla ko bokk ak yow ko yéene wala yàlla xam fu jëm ci bàkk ma benn royukaay sëñ Matar mooy sama royukaay mu ne ma bu ne bu ñu wax li ñu naan ma li naan idol moom laa waaw dama koy ñaanal waaw dama koy ñaanal waaye du ko sant daal di ma kontaan naa xol seet na bu baax jërëjëf tey ban mbégte nga am kontaan rek alxuraan rek moo amati ndam alxuraan rek moo amati ndam wax ji moom commencement ba fee alxuraan rek moo amati ndam. mu mel ni kokki nga déparé. kokki laa jóge ñëw fii waaye ku mel ne sëñ Maxtaar Jenn lii mu yor li ma koy wax at yi nga am amagoo juróom fukki at yor yor ay milliards ko def jumaa képp nga koy def ku mel ni kii la sëñ Touba soxla ku mel ni kii la lislaam soxla man de bokk na ci ñi xam ne ñoom laa roy. Euh, Serigne euh, Saliou Diakhaté ñu ngi lay nuyu bu ngi lay fay ñu ngi lay fay nuyoo euh, tey jii ñu ñëwoon ci bisub njàngum alxuraan mi Euh, muy euh, sa sëriñ Maxtaar Jeen di ko def ñu di ko rafetlu mande kook euh, sama xarit junior mi di sama xarit di sama nit ak Thierno Diop ñi ñun moom lépp lu ñu woote Sëriñ Tuubaa kenn duñu jiitu ndax maa ngi dégg léegi muy wax si Maxtaar Jeen naan ko buñ ko teeloon a xam daayira waay bi ak yaas bi danañ fi ñëw muy lu sedd muy boisson muy ndox lépp ñoo ko ñoo ko fiy joxe te ci daayira boobu man mi ci laa bokk muy daayira Mawahibou Akyas euh, tey ñëwoon fii nag doon siyaar si loolu rek mooy tànk yi euh, di ñaan li ñu fi jàng ci alxuraan yàlla na lépp doon jàmmi réew mi yàlla na lépp doon ay xéewal te ñu jariñoo ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa junior bañ a ñàkk wax ndax ginnaaw yow dañu laa xam ci Mawahibou Akyas tubaarikàlla macha allah nga ànd ko ñu ngi ko war a kon faaw ñu nga jël bi yël kàddu waaw kàddu gi kantu sant la euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla jul ci Seydina Mohamed ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ñuy ziare waa Touba yëpp parce que xam naa ne gëj namoon nañ leen gëjoon nañ leen a gis ndax génnoon nañ demoon bitim réew ba démb lañ ñëw tey ñu ñëw tuubaa pour ziare si loolu moo ñu indi woon ci dëkk bi sànq Thierno Diop ne ma sëñ Maxtaar social mi nga xam ne moom suñ jëwriñ la ci Mawaahibul Akyaas ndax daayira Mawaahibul Akyaas bi Serigne Saliou Diakhaté tudd léegi sëñ Maxtaar yenn da cee bokk muy xéewal ay liggéey yoo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi jëwriñ la ca kon suñuy dox ba dégg suñu nopp toq ñu ne sëñ Maxtaar tey la ñuy ubbi jumaam du ñu xaar bi ma agsee ne ko kii na mu ne ma sam yónnee naa la sa invitation bu yàgg pour doon la yëgal bis bi mais comme nekkuñu fi woon mënuñu ko moo tax ñu bàyyi woon li ñu doon def lépp pour ñëw ziyaare ko euh, ñaanal ko néegu yàlla bi nga xamante ni nii tabax na ko yàlla na ko suñ borom sotti ay xéewal ak ay ngëneel sotti ko mbooleem jullit ak mbooleem taalibe bu ne boo xamante ne rek yaa ngi ci biir réew mi ak bitim réew. waaw kii nag ñu taxawal doonatul ku ñuy laajte ci réew mi muy El Hadj Djili mu ñëw tey Touba ci teewaayu sëriñ Matar Diène groupe social ci lii nga xamante ni si moom la moom lay inauguré tey muy jumaa ji ak tarib alxuraan bi sëñ ji lan mooy euh, tànk tey. waaw ñu ngi ziar ñu ngi fii nag moom suñu teewaay mooy xam nga suñu maxtaar daal suñu wëllëre wax dëgg yàlla te lépp lu mu soxla ci lu jëm ci électronique électroménage daanaka si ñun la koy wut see loolu moo tax xew la toll nii li li gën mooy ñu bàyyi suñuy te ñëw teew ndax ñoo bokk yoon yi ñoo bokk lépp. bi nga ñëwee fii lan ngay. waaw kontaan rek kontaan rek xam nga tubaab moom.